sarang saranga euh, bëgg sa réew ci jàmm yàlla la bokk xeex Amadou Ba farata la Amadou Ba bu baax a baax Covid 19 bi nga xam ne dikk na fi Sénégalais yi sonn benn xeetu sonn boo xam ne ñu tëjjeen seen kër yi ñu baadoole yi gën a sonn ñi nga xam ne si nekk ñoon ay baadoole sonn ko baadoole yi Sénégalais yépp marché ci benn coono muy coono feebar bi ak coono xiif jamono boobu coono boobu ni mu méttee Sénégalais yi teg loolu tegu seen bopp yi coono xiif coono tawat ji coono ñu tëj leen ci seen i kër ndekete yoo suñu dirigeant yi ñu ngi jaar ci suuf di rocce suñu xaalis bi ba rocce ci ay ay milliards yu bëree bëree bëree bëree bëri li nga war a jàpp foofu mooy benn régime bi la Amadou Sall ci ñoom la bokk te képp koo xam ni sa mbokk faatu woon na ci wala xam nga kenn bu ci fa wala benn sénégalais bu ci dee sénégalais yi na nañoo xam bu baax a baax ni ñi nga xam ne ñoo jëloon xaalis ba war na faj ba war na jënd ay matériel pour sauver leen ñooñu participer nañ ci e, nombre bi nga xam ne si décès dinañ ci parce que nit su fekkee 500000 e, moo ko war a faj nga teq ci 500000 300000 bàyyi ko 200000 yi saa bu faatoo war na nañoo laaj ne la yow waa ji maa rëyoo ko Amadou Ba. ci régime boobu la bokk te régime bi mi ngi en bis boo juumee ba sànnil sa carte Amadou Ba loolu nga dajoon Covid 19 lu ko gën metti gën koo tar gën koo nekk njomme gën koo nekk lu bona bona bona bon jàppal ne di ko dundaat ay at yu bëree bëree bëri di jooy di mat sa loxo te doo gis kenn ku la wallu kon euh, bëgg sa réew ci jàmm yàlla la bokk mais xeex Amadou Ba ba di seetoo benn kàttan boo ko xeexee ba du yilifati ci Sénégal lu toll ni fekk suuf farata la